jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di kontaanee di am kontaante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu koy defee saasu ne tey nag ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy usine benn tali seet si fi kenn koo xamante ni bokk na ci làmb muy ñing production ñu def benn remise drapeau ñu ànd ceeg moom Euh, ci drapeau bi nga xamante ni daf koo tuddee kenn koo xamante ni kilifa la ci dëkk bi tey it wax dëgg ku yokkul yaa waañ muy sëñ Cissé mu sëñ Babacar si mbokk yi tey ñu ñëw fii ci remise drapeau bi ànd ceeg moom ñuy nuyu ñi ngi production avant tout ñu ngi lay nuy oui di wax ne auzu billaahi mina seytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant ñaari waajur ñaan suñu sëriñ mu yàgg fi te wër muy sëñ Abdou Karim Mbacke di wax ne ñi ngi nuyu waa Touba ak yëpp di nuyu sëñ Cissé mi nga xamee ne moom lañ fekk si fii di nuyu Lirou jaan mi nga xamee ne sama xarit la sama doomu ndey di nuyu saal bi yëpp daal dañ fi ñëw tey pour dem si drapeau muy drapeau sëñ Cissé waaw. xam ban relation nga am ak sëñ waaw sëñ da di dafa liggéey lu mag ci réew mi rawatina fii mu nekk nii ndax ndawe léegi képp koo xam ne maanaam tey kilifa la dëkk fii mu dëkk nii muy Grand Dakar euh, am na ñoo xam ne maanaam tey jii ñu bare bare bare jàpp na leen comme ku mel ne ñun liiru jaan mi nga xamee ne sama xarit la su ma xamee sëñ Cissé liiru jaan moo tax ma xam ko mais réccu ñu luñ ko xamee woon ndax kilifa la goo xam ne maame nga lépp luy doxal ndaw pour mu dox jëm ci kanam rek boo ko séentoo sëñ Cissé gis ko ci moom loolu moo ñu tax tey jii ñu ñëw fii delloo ko njukkal ci drapeau bi ñu ko jox nii daal waaw. nga dëgg combat boo xamante ni combat espoir la muy diggante Thielly ak Agogo lu tax Thielly ak Agogo. waaw ñun ay amateur lañ. te yaakaar nañ ne ñi ngi production lépp loo xam ne luy doxal làmb rek. moom ci la nekk. di ba ma fi ma war a commencé sax foofu laay commencé ki nga xamee ne mooy jàppale yi daal di ñu ngi mooy Abdoulaye Ndiaye di sama xarit ak Saliou bu sama coordinateur ñooñu fu ma nekk war naa leen nuy ndax lépp ñu ngi ñoom la ñun ay ndaw lañ rek nekk ci làmb topp ci suñu ginnaaw mag yi ay ñoom Fallou Ndiaye ñoom Assane Ndiaye ay ñoom Sam ñu ngi seen ginnaaw di jàng rek mënaguñ dara daal nañu ñu ñaanal liñ bëgg a ba liñ drapeau bu mag a mag bëgg nañ ko boo xam ñoo ko seen système bi ñoo yu mag yi nga xamee ne moom ñoom lañu lim fii waaw. yàlla na ko yàlla def. amiin waay. tey euh, le 4 janvier ngeen koy def euh, stade Iba Mar Diop. waaw waaw le 4 janvier la di woo amateur yëpp di wax ne nañ ñëpp ñëw ku ñëw bëgg làmb ji neex la incha ko gis sëñ Cissé du nit ku ndaw nit ku mag la te référence la kon ñu ngi ñaan bis boobu nga xam ne maanaam moom lañ koy delloo njukkal ci bis bi suñ borom defal nu ci feex ñun ñëpp. di woo mbokk képp koo xam ne maam ko yaa ngi bawal daal maa ngi lay woo ci bis bi nga xam ne moom lañ jël jox ko ñu euh, ñëw feete làmb ji mu mu jeex commencé ci jàmm jeex ci jàmm loolu daal laa ci ñaan man waaw li ci des nañ ko ak Agogo ticket yi génn na. waa bi yi génn na. ñaata la. Euh, billet yi lañ ko def. supporter 2000. amateur 3000 loos bi 10 000. waaw. yomb na de. dañuy wax ne daal amateur yëpp daal nañ ñëw xam ne lépp luy defar làmb rek ci la ñuy ndax ndax nag làmb yaakaar naa ndaw ñi moom la ñuy topp léegi te ku ne xam ku wax ci Thiély wax Agogo xam ne champion la te bis bu mag la bis boobu waaw képp ko xam ne maanaam bëgg nga gis daal ah, Tambacounda bu sax nanga ñëw foofu Ndeye Fatou mi ngi jox la 4 janvier ñëpp rendez-vous foofu moog doomu Babou Ngom waaw. jërëjëf Ndeye Fatou ak Momo Ngom ah, Basirou sax <laughs> waa ngi nii leex a fekk Gàmbi ndeysaan doomu lay wuli keroog de macha allah wane ngeen lu rëy ci Gàmbi de liiru maa lay nuyu. maa lay ziar may booy sama jantal booy nga di nuyu sa gars yi ndax tey sama xol dafa sedd ndax ni nga ñëwee fekk ma fii ànd ak yi daal yi sama xol dafa sedd guy ndax euh, drapeau bi ki mu ko tuddee dafa sori ci man. si si waaw mu sëñ Babacar dafa nekk sama sëriñ nekk sama xarit loolu yàllaa ko def dafa nekk sama sëriñ nekk sama xarit bisam nekk sama bis la dama ciy taq rëpp ni ci bat ndax sëñ Cissé waay sëñ Cissé laa ilaha illallah mu rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf may ñaanal ba pare di ma bokkal xam nga loolu dafa jafe ci sëriñ sëriñ bu lay ñaanal di la bokkal sëñ Cissé ngi nii mu sëñ Babacar kenn du moom ay su la kaatee man xaw ma la kaat lan laa war a def xaw ma damaa war a sañse ñëw ànd ak moom jiital ko dara ko xaw ma damaa war a pàkkar ñu ko rek sëñ Cissé gis sama pooj bi ndax xam naa la ma def Gàmbi waaye waa waa Gàmbi gën gënuñu ci ay sëñ Cissé ndax sëñ Sidi am na lu ma ko war a defal. xaw ma damay jékki-jékki daal di suy pàkkar ñi. moo ko mérito sama sëriñ la sama xarit la. ay eh, ku ma bëgg a jaxase ak sëñ dégg naa am na mbër yu jéem a ñëw di jéem a def ay manière ak yooyu. sëñ Cissé nag loolu sëñ Cissé Sénégal la réew mi la sëñ Cissé diaspora bi sëñ Cissé àdduna la waaye sëñ Cissé maag sëñ Cissé ay <laughs> eh, ku ci jéem a dugg xam. yeneen mbër yi ci des yi ñëw sama yoon nekku si ñoom man sama bopp laa lijjanti man. bari sëñ si nag sëñ la gaa di wër man xam naa ne moom la gaa yi di wër waaye <laughs> man man sama paar man bokkuma gaa kenn xajuma ci kenn. lu mu yor maay borom. waaye sëñ Cissé ci kaw ci kanam yàlla na yàlla lafal cat. drapeau biñ ko biñ muy le 4 janvier ban yëg-yëg ci sedd guy kii méritoon la ne ndax da ko fee liggéey man xam naa nit fa gën ko heure bu ne mu ubbil ko nit yàq na heure bu ne seet sëñ Cissé man xam naa kuy sëñ Cissé man sama bopp xam naa kuy sëñ ay sëñ ay sulu kaate du yomb déedéet dama ciy takk rëpp niin ci bat ay sëñ Cissé mu sëñ baaba yi daal xamoo li nga def ci kaw ci kanam bala kaat yàlla na yàlla fa cat agogo ak Thielé ah xam ngeen drapeau ki ngeen di bëre ki mooy sëñ si sëñ Cissé mu sëñ Babacar waa jaa ngi kii la gars yi di wër. <laughs> maa ko xam ku ci daanu ma wax dëggee fa nga jaar daanu ba faw sobo nga jubile rek waaw waaw drapeau sëñ Cissé ku ci daanu maa la yërëm sobo nga jaar fa rek jubile moom bàyyi bëri waaye ku daan nag moom a ah, tàkk ba faw sobo sa xel dem ci roi des arènes drapeau sëñ Cissé koo jël ku yóbbu sa xel dem ci roi de arènes maa ko wax. ndax dangaa xam kuy sëñ <laughs> gaa yi xam nañ kuy sëñ Cissé ay sëñ Cissé ay sëñ Cissé. Mbaba Gambi ay sëñ ay sëñ ay sëñ laf cat kaar yéen macha allah bul ma catu. dégg naa la nga fa indi ci gàll. bul ma catu kaar. ay waay bàyyi ma. wuli da nee na dañoo téye loxo bi. wax baaxul téye loxo kii xaw maa rey nga ma téye loxo kii ñuy dem ci ginnaaw saako mu may dóor dóor yoo xam ne nga ma téye loxo yi. non non non ci biir moom wax dëgg yàlla ku yooyu yëgu ma ba ma génne ci biti. bi arbitre bi arbitre soufflé laa bàyyi mu di dóor. mais vidéo bi wuli di def statut nag bi ngay nelaw boobu. non non boobu jour combat bi la ci guddi gi vidéo wuli ko moo ko def statut boobu non non non bu dul loolu du dara kuy nelaw. nelaw nelaw mooy rakku dee. nelaw mooy rakku dee. nelaw mooy rakk de damaa xam ku ma filmé boobu daal dama doon nelaw ci hôtel bi xaw ma ku ma filmé waaye nag bàyyi naa ko ak yàlla kooku moom yërëm naa ko moom ki ma filmé moom ki ma photo photo boobu bàyyi naa ko may xaran xaran yu metti nag damaa sonnoon jour combat bi la <laughs> waaye loolu dara am problème loolu du dara <laughs> nan wax ci la kaat ñu fi indi soo bëggee wax ci gàm bi da ngay bàyyi beneen yoon ñu wax ci gàm bi waaye la kaatañu fi indi sëñ Cissé daal bisam bii yaa ngi ci dugg bisimilah rahmaani génn ceeg alhamdulilah rabil alamin te xam naa ne ku tardé moom doo am place ndax bis du tuut borom lay tollool ndax nit nit ñi la waaw te am na lu ko yàlla may ci kaw ci kanam daal bala kaat ay yëddaal ay yëddaal ñi nga xamoo li nga def moom mi fi lay jaara tàkk ba foofu moom it yëddaal yi fii lay jaara tàkk ba xamul koy kuy sëñ Cissé moo tax man maa xam kuy sëñ Cissé ak ñenn ñi ci ruq wax baaxul nag ci kanam dégg ngeen li nga xamante ni moom la yëddaal ñi nga wax dégg ngeen li nga xamante ni moom la liiru jaan wax dañuy ñëw ci kilifa gi nga xamante ni moom lañ dara jaal bis bi muy sëñ Cissé mu sëñ Babacar Sy sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. Euh, noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay bi leen yàlla jox ndax kenn ku ne am na wàccuwaay bi ko yàlla jox kenn ku ne ñu ngi lay jox sa waay woowu di leen nuyu di leen siyaara di nuyu nuyu bi gëna sakkan nag gën a yell muy baatub asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. <laughs> bu loolu jàllee ci ginnaaw nuyoo di siyaara. yeddaali mii nga xam ne yàlla def na ne xaj na la wéykat ba doon wax naan fa maa shaa kaana wa maa lam mbir mu ne dafa am fu ko yàlla lay dogalee waaye lii duxul yow yaa ko njëkkoon a bëgg waaye ci yow la ko yàlla dogalee kon loola dañ cey sant yàlla ne mbir mi ci sa loxo la ko yàlla jaarale bari na ñuy ci woo ay kilifa bëgg a def lii nga def waaye yow dong liñ ci validé lii ne nangu nanu ko ndax na mu demee moo tax buñ ci nuyoo kooku moom nuyu ko ci ñaanal ko ci yàlla ndax li liiru wax de ragal naa lu ma tudd ci sama làmmañ waaye incha allah ci doole yàlla sunu borom yaa ngi fi ñoo ngi fi boo bayee ko ci làmb ñu xool li xew ci kanam lan la di siyaarit liiru jaan ndax sëriñ Mansour borom daara yi nee na ki gën a baadoolo ci nit yi mooy ki nga xam ne dañ koo defal triangle mu guux ay la xam ne dama ko yeyoo booy seet baadoolo jàppal kooka liiru sama xarit la te laxit nu xaritoo lenn la mooy ne dama gis mu àndoon ak ñeneen ci oto suñ borom jël leen ñamu jël gënut leen te deful lu taxit sun borom bàyyi ko fi ma gis ne saa suñ ko dékkee mikoro te micro da di lu kenn xamul di seytaane manoon na saa suñ ko dékkee micro rek mu wax la mu wax bëgg a wax bu paree pare ca ma gis ne saa su commencé waxam da ngay gis mu lim ñoom Alioune Seye ñoom ñoom Ba ñoom ñoo ñëpp mu lim leen ba ña ñoom ñëpp loola bokk nag ci li ma marqué suñu borom def ñu xamee ji bi ñu xamee yi nag suñu borom def ne fu mu toog ne Serigne Cissé mu Serigne kër si bu toogee gëj maa dégg dina ma woo téléphone bu amee jot wala mu ñëw ci fii fenn jaar ci kër gi ñu toog waxtaan kafre mu dem ñibi ba ci koor gee yooyu yëpp ka saalika muy nekkoon tamit man li ma gëm li baaba kër sama Serigne ba waxoon rek laay wax. as du tiit ba fen as gor du jàpp di bàyyi waaye nag nit ku ne amul ñenn ñu ñamu bokkal Mor Cissé da di sunu mag di sunu xarit xaj na tur wi nit di dégg waaye xam ko yombul muy ci lan fu Moodu déparé ci ay mbiram dippi mbappat ba fii Moodu yeeg si muy lu lépp di ñëpp di wër muy baatu roi de arènes moom Modou Lo ñoo ko ànd mu it ñu bokk fenn fu nu dëkk ca Saalum di jaamal kon Mor Cissé maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa cër ak sa waay di ziar euh, sa rakk muy Serigne Babacar nee naa ko Babacar moom Babacar rek la xàmmewuma ci ndax fëriñ fëriñ rek la kon Babacar Babacar rek la. baba kërit moom it kasaalika dem naa ba ci làmb ji mujj diggante Eumeu Sène ak Bombardier euh, Eumeu Sène ak kii Modou Lo maa ngi dégg Pa Maguette Sénégo di ko tooñ naan ko paawu séeréel bi ndeysaan noonu la. ndax ñun li nu doon buñ ko doonee ñun liiru li tax jàpp saalum saalum wóoru saalum saalum bu jàppee rek jàpp na te bu man duma jàpp lii ndax diw man la ma jàpp ak diw man ak moom la keneen man ak keneen la waaye ñii dañ di sama doole comme ni nga mel ci man dañuy toog foo xam ne nekkuma fa kenn di baatal ci Serigne Cissé ñoom ñu jóg raisonné te man duma fa fekk samay mag lañ samay kilifa la lañu ya daal di nag wër na Cheikhul xalifa mi ma yaakaar fii ak fa nu barke sëriñ Babacar kër si danga bég lool te fii laa ko waxee te àdduna ñëpp xam nañ ne man sëriñ Cissé doom ju ma tudd turam yaayam du nelaw bu dee dund la yaayam dana dina kontaan bu dee safaan yaayam dina tiit ndax xam na ne du ma waxee ngir naf su bakkan man lu may wax lu ne damay wax la ma yëg ak la ma sentir te bu bis ba jotee ma taxaw ne maa waxoon lii la ma cay wax nag mooy ne ba ci diggante liiru jaan ak wulli samay ñaari nit loon yàlla boole leen. waaye bu ma ca xasee ngaang wax ca wulli wax ca liiru dama asube damaa wax ba nu waxee suñ borom dimbali nu waaye ñii samay kilifa lanu waaye nag lanu nekk nekk kilifa di boromi baatin di Mor Cissé di kër siise waaye nekk boromi baatin nekk ci suuf la ma sëriñ Mansour wax nee na mattu gu ndaw gi ci suuf mooy jàppal mattu gu mag gi ci kaw te matt gu mag bu jàppee rek defe naa ne day gën a day gën a yànji rek nag waaye mboolem kuy bégee làmbu ma mos a wax benn bë benn benn baat rek mu neex la wonaa la ci ji làmbu te li liir wax dëgg la la kàddee ñii ñaari mbër yi di ko bëree ki daanu laa yërëm waaye ka daan dee xaama fan la jëm moom ay lampam da cay doxee di tàkk te kuñ ko boolee teeg yërëm naa la ndax xas naa am drapeau Serigne Cissé bu baaba kër si mu nga ci sa kër loolu taw féex la waaye di bëggee mboolem site internet boo xam ne mu mu mu ngi dëkk micro ndax yéen yàlla yàlla fay leen. ndax lu jafe woon lu ne yéen a ko yombal waaye maa ngi ci woo ñëpp waaye nag di ci woo kan sama xarit Modou Lo maa ngi koy woo ci bis bii Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy mu ngi la ci woo liiru reena ba daanu non làmb ji dafa neex làmbi spectacle lay doon ndax liiru sama xarit la moo tax ngeen xam ne yàlla dafa kéemaane Balla Gaye ak liiru suukar ak soow la boole xuyal naan wala këpp ci suuf si yàlla ngi def maag liiru gis nga nu nu nekkee benn te man yàlla daf maa nattoo Modou Lo yàllaa ma ko nattoo du du loo xam ne depuis Modou depuis may gën a nekk tout tànk mu nekk tout tànk comme mbër yi ni ngeen leen di boole nii la man ak Modou nuy ànd xëy na dem nañ ba jamono la ma Serigne Mansour garanteloon ba mu génnee la Sénégal yum nangu ne Serigne Cissé de génn na waaye it ba liiru ñëwee xam na ne kii de Modou Lo mbërëm la waaye moom loola lam wax dëgg la lijjantiwul loola moom mu ngi lijjanti sama diggante ak moom def it Modou it mu ngi lijjantiwul loola waaye liiru léeg-léeg mu toog bërëxal yenn ma woo ko ci suuf na ko waaye yow nag liiru kanaa nekkatuma sa sëriñ liiru baaxal sama waa ji kon liiru moom it ku baax la euh, wulli de ku baax ñoom ñun ñëpp baax man lii laa gëm ci sport sport bu nu defee lañ leen boole ba pare bu pare war na noo mën a ànd doxi seen soxla man dafa am yu may jàppee nit waaye du am am du tur du dara kon jàpp leen ne Modou Lo moom làmb yu ja menn mbër mu ma ci woo Modou dana ca bokk deuxième mbër lii nu jaam lum dugg ma dugg ca lum génn ma génn ca lum taq ma taq ca ndax jii na ma ko waaye ji naa ko ko ndax dundewul dund baadula liiru jaan laa gis mu sol yére dem ci takku jàmbur ñu war a waxtaane takku yaayoo naa sa taxoo war a séddale guur gaag ya fa xew mu a du ma laaj ku ma sañ seel adduna yëpp di ma woo nu ma sëriñ siise liiru mi mbaa ko dóor loola nag liiru moom mbaax ak mbaaxam rek waaye doole sëriñ kër Si mosunoo yëkkate dara di ko jox te fu mu taxaw jëm faa sagal suñu jëmm ji waaye ya yàlla nga sagu ñoo ngi ñaan ca darajey sëriñ Fàllu yàlla nga yokk lool yàlla nga wér lool am jàmm lool ñuy bëree ba drapeau bi yàlla na am jàmm sañu ma caa ñaanal kenn daal waaye këlëmeer gañ ku ci daanu ha yàlla na yàlla def jàmm daal yàlla defal leen ko defal nu ko bala 4 janvier incha allah Serigne Cissé mu Serigne Babacar si Iba Mar Diop incha allah ndem soob na yàlla wasalaamaaleykum jëri ngeen jëf. jërëjëf Serigne Cissé mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la kilifa gi wax ndeysaan muy agogo muy ceeli yéenewu ma ci kenn mu daanu ndeysaan ñaari xale yi ndax drapeau bi ku ko jël hmm, wax baaxut liiru ban kàddu nga amaat boo xamante ne mën nga ko cee sànni li sëñ bi wax kontaan rek sama xol seet na guy du lim li mu wax rek moom dafa nekk sama sëriñ ba pare nekk sama xarit waaw ndax bisam moom wax dëgg yàlla moom xam naa ne daal la kàddu yomb doo fu ngeen di dem yéen ñaaree ànd kanti wulli wulli non dina ñëw non dina ñëw wuli dina ñëw. woo ko ku baax la wuli. waaw wuli. Hmm. ngi ko cay woo ndax wuli xam na ma ñam na ma. kii li mu wax. yàlla la waxal. wuli ñam na ma kombaam ak big poto. benn xaritam sama xarit sax la. moom dafa bëgg Modou Lo ñu koy wax Dame Diagne mu nekk fële ca Ngor di jaay ciment. ma taal sama woto jëm Saalum wuli woo ma téléphone. daam na ma jàppaleel wuli. ma ne ko incha allah ci doole baaba kër si kenn dootul la wulli yaay wulli. Mm-hmm. combat boobu ko wulli. wulli. bëgg a wulli sama xarit ma ne ko non ah, fekk ko ci saal bi mu ne ma boo seetaanee mu ne mu ñaaw ma ko wallaahi drapeau bi dana ñëw. kon wulli sama xarit la ñam na ma liiru ñam na ma man ku ma ñamul rek a sànni xeer waaye ku ñam ah. xam ne ah lépp dëgg la kon yàlla na yàgg ci réew mi. wuli maa ngi ko ciy woo di ci woo Saliou Khoule comme ñoom ñaar fu ñu ñooy ànd te Saliou sama xarit la waaye Serigne Saliou la maa ngi ko cay woo di ca woo mboolem amateuru làmb daal maa ngi la ciy woo xaadim ñem ñëpp magu Saliou Khoule sama xarit la moom daf may béggee dafa am benn émission bu ñu mosoon def DTV ci koor gi chaque jour directeur bi da koy woo naan ko mu fexe mu jàllu émission boobu yàlla kon ñu ngi ko cay woo moom xaadim di jëpp yi di leen ñaanal yàlla ñem ñëpp ñoom magu làmb yi ñoom ñëpp nag maa ngi ñaan suñu borom defal leen tawféex ak sutura Mor baaba kër Cissé seen bisa ngoog incha allah sama waa ji nag ngeen baxal ma ko xel maa ko wax te dinaa ko assumé te réew mi dinañ ko dégg da nga feeñ ci biir bawol bawol incha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Cissé dañoo bëggoon xam départ bi fan la. départu Serigne Cissé. fii fii lay doonee. lépp fii lay xewee benn tali gi képp ku bëgg a ànd ak Serigne Cissé dooleel ko ci bis bi fekk ma benn tali. ñu àndante dem ca dem ci jàmm ñëw ci jàmm bu kenn nopp bu kenn feebar ba bis ba incha allah si kàttanu yàlla waaw. ñu ngi daal mel ni kontaan waaw wax dëgg yàlla kàddu yu mbégte laa fi dégg daal wax yàlla kontaan naa trop aw ma leen lu ma mën a wax. li may wax daal yal yàlla suñu borom dogal ñu yàgg ci la kaat ak jàmm ak salaam di woo famille làmb yëpp di wax ne nañu ñaanal suñu borom defal nañu la kaat mu dàq la 15 ndax la 15 sant nañ ci bu baax mais ku ne xam ne ne bis boo ci jógee yaa ngi ñaan bis bu ko dàq kon nag bisab sëñ Cissé bi daal ñu ngi ñaan suñu borom mu defal na ci sutura defal na ci jàmm defal na ci xewal di wax waa làmb yëpp daal na nanu képp koo xam ne bëgg ngaa gis sëñ Cissé naka ñëw la 4 janvier stade Iba Mar Diop ñu ngi jox rendez-vous ñëpp di wax nag maa ngi nuyu sama yaay bu baax di ñaanal sama soxna tam mu yàgg fi te wér ndax sama soxna lépp loo xam ne maame ko lu ma naqare la rek ko def te ku ne xam ne jëkkër promoteur dafa metti day jàpp ci biir kowaar lu ne daal daf koy def ndax lu ma may kon maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom njaboot gi ñam suñu borom taxawu ko bu baax ba dimbali ko daal di ñaanal nag sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ñaanal Cheikh Ndigal seen di ko wax ne ñaane gis nañ ko bu baax a baax a baax waaye ñu ngi waañ làmb daal di wax ne képp ko na nga ñëw xamee ne sama xarit la waaw liiru jaan maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko sàmm ko may ko xewal ndax itam bu xewal yaakaar nañ ne làmb ñëpp yëg ndax xol bee rafet daal moom yur di biirub dëkk mm-hmm. dafa mën a mën a boot ñëpp mm-hmm. ndax tey jii jamonoy léegi ndaw ñi dañoo neex te moom mii ay ndaw la jiite maam yi ndaw yi géej yëpp topp ci ginnaawam kon yaakaar naa yor digg yor biirab dëgg kon ñu ngi koy ñaanal suñu boroom taxawu ko sàmm ko boole kook ñi nga xamee ne maam mooy famem ba suñu borom déggale leen bu baax a baax a baax a baax man nag damaa kontaan ba mënu maa wax daal ci seen Cissé ñu ngi ñaan suñu borom daal bis bi ñu jàmm ak salaam ci barke alxuraan jaajëf ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la sëñ Cissé wax dégg ngeen li nga xamante ne moom la i daal ñu ngi wax dégg ngeen li nga xamante ni moom la liiru jaan wax mbokk ñu leen tàggoo ci làmb ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo sëñ bi buggoon naa nag ñuy dugg ci at bu bees mm-hmm. nga ñaanal réew mi yëpp ñu am jàmm mm-hmm. dafa am promoteur boo xamante ni dafa bokk ci làmb mm-hmm. muy lig ni ko laay yàlla def caabi féete ko ginnaaw ñu bëggoon nga ñaanal ko ñaanal mboolem jullit ya fa nekk diis naa la loolu waaw bu ko defee mbooleem ñim ñi fi nekk ñëpp ñu muslu ci saytaane ginnaaw bu nu muslu jiital astaxfirullah muslu ci seytaane defal ko faatiha ak ñetti per salaatul faatihi sunu maam Cheikh Omar nag buñ mosaan a joxe ñetti per danaan ñetti per salaatul faatihi dafa ëpp soxla su toll noonu amut ci àdduna waaye nañ ko dogaan rek def ko ëddee ci yonent bi ñaan yàlla lii bu na moon a diis yàlla bu mu diis te buñ ko dogoo yàlla mën naa def ne bu na moon a diis du diis ñu def fatiha rek ñetti per salaatul faatihi ñaanal ko ko yàlla bismillahi rahmaani rahim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 kër subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ko aju barke sëriñ amin yaa rabbal alamin yàlla na ñaan gépp nangu képp koo xamante ni dafa nekk fële caabi féete ko ginnaaw yàlla na ko fi suñu borom génnee ñi feebar tëdd ci hôpital yi ak ñi nga ni feebar nañ tëdd ci kër yi yàlla na suñu borom fëgg seen bopp bañ jug ak jàmm ak salaam mbokk yi foofu lañ leen di tàggoo ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak SDTV ci ci beneen xew-xewu làmb incha allah jërë ngeen jëf.